wax donc installez-vous confortablement ndax léegi-léegi la ñu koy waxtaanee kaw bees c'est toujours fun et puis dafa neexa ah, interactivité ak suñu ay euh, internautes aussi commentaires yi yenn saa damay dugg tamit euh, di lire juste rek pour bëgg a am aussi retour au sénégalais yi la euh, alors ma dooree ko léegi-léegi ah ñu tàmbali ak li nga xamante ni moom mooy sortie bu ki nga xamante ni moom mooy oustaz Modou Fall ci li nga xamante ni doon nañ ko fi waxtaanee muy supposé divorce bi nga xamante ni voilà ñu ngi ko doon waxtaanee ci diggante Abdou Aziz ki nga xamante ni moom mooy soxnaam di Miss dañu gis oustaz Modou Fall génn euh, def benn sortie boo xamante ni euh, wax na Ah, oustaz wax na te ni mu waxee xam naa ne aussi wax na ak ak xadar parce que ko déggee waxee noonu euh, par rapport ak euh, li nga xamante ni coow la am na ci Abdou euh, ki nga xamante moom mooy Aziz Ndiaye loolu lay naa am seen seen njàngat aji yow xam naa ne oustaz sa gain la waaye xam naa ne ko gisee aussi mu wax <laughs> na am na loo ci jàpp am na loo ci jàngat wala am na noo ko gisee mais par la suite aussi gis naa ci internet bi ñu bari aussi di ko dal par rapport ak ni mu waxee aussi en tant que oustaz bi nga xamante dañ ko daan baax dañ ko daan faral di gis ci plateau yi ah, muy waaraate eh, tey bu ñu ko gisee mu utiliser beneen ton bu ferme wax ba utiliser sax yenn kàddu yi eh, ci oustaz Modou Fall donc loolu lay bëgg naa ci am sa jàngat aji mas waaw euh, avant tout mu koy nuyu euh, muy oustaz de Fall di nit ku yàlla baaxal wax dëgg yàlla <coughs> mais balaa dara damay ñëw ci benn affaire boo xam te ne sénégalais dañ ciy réeri mbir muy kaawu Abdou Aziz Ndiaye sunu frère mhm. bii passé ñu ci bari danoo foog ni danoo ñëw di wax ci li nga xamante ni moom mooy ci takk xale bi ñu waxuñu loolu. comportement bi nga xamante ne nii xamee wuñ ko woon. encore une fois je vous le dis et je mm-hmm. parce que foofu aussi femme yi taxaw fa seetlu parce que ñu ci bari dañuy taxaw di wax ne sax ay soxor. ñu ci bari dañuy taxaw di wax ni ku am sa jabar joué ak moom ñun waxeewuñu ko waxeewuñu cadre boobu mhm. fii ku mu neex takk sa nouveau né sax foo wax moom mhm. ñun dérangé wuñu lijjantiwuñu parce que ñun di wax ak yow tey bu ñu amoon jabar positionné wu ay sa rasul wax fa dëgg neex yàlla dinañ kaf dinañ rey ah, mais pas ñu defee ko d'une seule manière mhm. ñun comportement ki nga xamante ne ni musuñu ko xamee comportement bi ci noonu nan doon waxee encore une fois ma ciy ñëw bu ñu jógee ci loolu bu ñu jógee ci loolu nee naa ko damay ñëw ci li nga xamante ne moo di ci oustaz Modou Fall benn instant bi merewu ko. du question lu mu nekk sama nit nag moo tax. ndax li tax ma merewu ko xama dama la ko dama am fu ma ko teg entre ki nga xamante ni xarit. mais dafa doxee dafa defee benn affaire boo xamante ne nii sama bopp laa xool ci moom keroog. mais loolu dafa xaw a dangereux. mais ci góor xëy na du ci am. xëy na ci góor du ci am. Mm-hmm. ndaxte góor booy défendre sa nit. xam nga défendre sa nit c'est très grave. daanaka ci àddina man regret yi ma gën a def ci àddina yi ma gën a réccu mooy yi nga xamante ne dama ko doon taxaw di défendre nit mais xëy na ci jigéen ñi ni lay lalee leen di gu sërëx wala di la def di la pousser ngay wax loo xamante ne ni tey boo ko waxee pare tey doo ci am retour bu la neex wala dal la ci sànni taxaw dugal ci ndox ba ci baat taxaw ci xëy na góor du ci am noonu man li mu li mu li mu taxawee defee man dama ànd ak moom foofu na xam la moo tax parce que dafa défendre dafa défendre nitam tey dinaa toll ak Ami Collé toll euh, dayo boo xamante ni bien vrai bi ma xamee birki démb la am na ñu mu njëkk a xam foofu ka man mais mu sikkal man relation yoo xamante ni nii du ma permettre mindeef bu nga xamante ni day taxaw di wax Ami Collé quoi que ce soit mm-hmm. c'est parce que moom ko ci man ba ma commentaire commentaire négatif ci ci ci biir internet bi sama yoon nekku ci boo duggee cadre amical boo ko commentaire su boo ngoon ci commentaire mën ngay gis may tontu ah nii wane sama photo parce que la ma ji la moo tax nit boo demee ba nga xamante ni sa nit amul la njëriñ sa nit lu la li nga xamante ni moo di dara sa nit loo koy doy amul sens dëgg la yaa ngi dégg mm-hmm. Mm-hmm. foofu dafa défendre ki nga xamante ni moo di Abdou Aziz mm-hmm. man foofu je suis entièrement d'accord parce que loolu day wane ni kii kat mën na yaa ngi dégg mais waxewu ko comme parce que Abdou Aziz mi ngi tedd oustaz Modou Fall mi ngi tedd mhm. lan mooy problème bi lan la ko Abdou Aziz mën a defal lu mu amul mhm. yaa ngi dégg koo xamante ni li mu def moom mii di wax moom mii di wax oustaz Modou Fall def na lu nekk fi mu ci ay daar mhm. mi ngi taxaw di yee sénégalais ci leneen ak leneen nan bàyyi bu nit defee benn petite erreur ñu jël li nga xamante ni defoon na ko ci yu baax yëpp ñu effacé ko Modou Fall kenn gënu ko ba pare yi benn affaire dafa am ba am mooy euh, adduna tey sa bu defee li nga xamante ni moom moo di erreur yow mu leer na ni yow tey sa kii dafa def li nga xamante ni moo di erreur ci public bi ni ko sama maam doon waxee bu nangu mukk taxaw ci erreur bi nit ñi taxaw mhm. raxas ko ba mu set sangu ko ba mu set yaa ngi dégg boo leen toogee nag en tête à tête taxawal nga wax ko dëgg Modou Fall noonu la doxalee bu nit ñi nekk ay cuune quand même. donc mooy loolu du question sama xarit moo tax Aziz Ndiaye donc nitam la. nitam la mu défendre ko et que c'est tout à fait normal. mu défendre ko. Ah, par contre aussi ñi nga xamante ne jot nañu wax aussi ci ci ci problème boobu euh, ñooñu aussi bu ñu déggee kàddu yi tamit est-ce que tamit. man kàddu yi sama fee sama xamal li tax defuñu xama man lu tax sama fee rien du tout. oui mooy que ni ñun déjà waxuñu ni mus dafa danoo def non non non ah, de ñun ah, mais ñi nga xamante ne de de def live mhm. def dara xam nga li ma def dara mhm. nit ku ci nekk am nga droit défendre sa mhm. te kaddu yooyu noonu moom la engagé xëy na ñeneen ñi nga xamante ne nii kaddu yi blessé na c'est parce que foofu nañ taxawee am na wax yoo xamante ni bis ko waxee rek nga ne tap accepté wax c'est parce que noonu nga mel waxtaan dëgg ca waaye man moo tax gën a début bi may taxaw di fàttaliwaat sénégalais yi que ni waxuñu ni ci sëyu jàmbur c'est parce que bëgguñu mu àndal jabar dara hmm. doona wax par rapport son comportement boo xamante ni mosuñu ko xamee nit ñi nan fàttali ko loolu hmm. moo tax ba sama jël meen ma wax ko ko parce que sénégalais dañoo réer mbir benn côté ñun wax yëfu négatif yëpp foofu lañ taxawee wax hmm. lu seen yoon sëyu jàmbur lu seen yoon ci kii mu takk non non foofu li jënte comportement bi mu xamante ne mosuñu ko xamee loolu na ni jooy. effectivement pour pour revenir ko. mais pour Modou Fall défendre Aziz man je suis entièrement d' accord ni ko am sa ni défendre ko mais dama man c' est dangereux. Mhm. ci nag ci parti bi ma koy waxee ku lu ni fànk kenn ko géex. Mhm. defe naa ne ku dëggin rey sa maam loo gisati mu ñuul daaw. Mhm. man day dama ni xëy na ci góor ñi amu ci. waaye jigéen défendre na fi jigéen ba mu dugal ko dox ba ci baat taxaw waaw mais xëy na ci góor yi amu ci te ni mu defee nitam nit nii ngay defee seen. ci mhm. baax loolu la je pense que ni leer na donc loolu mooy analyse bu Adji ci euh, cas ma yaay booy suivre nga li nga xamante mooy soxti oustaz Modou Fall bëgg naa ci am sa njàngat naka nga ko euh, naka nga ko gisee kàddu yi nga xamante ni kii di oustaz Modou Fall yëkkati na ko jëmale ko ci waxkat yi entre guillemets mooy euh, animateurs yeeg journalistes yeeg. ak mhm. ñiy live ci internet bi. Mhm. Ah, en fait war a xam ne lijjanti sax suñu bopp bay lijjanti sàmba nii dee nii paate mhm. xëy na nag tey suñu liggéey moo ñu may sax ñuy wax ci nit mais amaana bu du suñu liggéey sëriñ Touba xam na ne amuñu jotu doomu aadama mhm. dëgg la mhm. boobu moom yàlla mayuñu ko parce que quel que yaakaar naa ni am na yeneen souci yu ñu gën a war a mën a occupé que ay souci doomu aadama que souci Jean wala Paul wala Pathé wala Demba rawatina na yu jàmbur et léeg-léeg doomu aadama yi dañuy faral di wax ni nit bu sëyul amul droit conseiller kuy sëy. ñoo neex sëy nit a koy def mais conseil am xel a koy def. dëgg naa dëgg conseil ça n'a rien à ak nit kiy sëy ak ki sëyul. Mm-hmm. léeg-léeg da ngay gis nit ne la yow la fekk sëyoo lu tax ngay mel ci sëyu jàmbur. Mm-hmm. sëyu jàmbur boobu la tax nga di ko ca mel mooy am xel nga yor te xel. mooy puso bu réer la xale mën na ko jël jariñoo ko que mag mën na ko jël jariñoo ko. Mm-hmm. il faut que les gens parfois ñuy def attention par rapport ak yenn kàddu yi. parce que ñu ci bari li ñu dagg rek la ñuy xool. du ñu xool émission bi fi mu dem a ah oui majeure partie bi yëpp parfois li ñu dagg rek dugal ko ci TikTok. c'est vrai moom la ñuy xool ci la ñuy focus ba di mën a yëkkati yenn kàddu yi di ko teg ci sa kaw. Mm-hmm. et pourtant comprendre ñu ne bu ñu duggee ci biir émission bi amaana nit ki nga xalaat ne dañ koo dal waxal nañ ko lu baax avant ñu koy dal ah parce que tey ñu nekkuñu fi pour Pathé nekkuñu fi pour Demba nekkuñu fi Pathé dañ fi nekk pour Sénégal yëpp dañ fi nekk pour tout le monde suñu jugement personnel la ñu am par rapport ak jëfin yi nga xamante ni mi ngi am ci internet bi parce que ku ne xam ne ni cas bees la ñu wax cas bu bees traité cas ñuy def léeg-léeg nit ne la dem leen ngeen wëri beneen concept wala dem leen ngeen defi nangam sàngam suñu concept bi moom lañ am et nous sommes nekk suñu concept bi parce que nit ku nekk lan la yàlla jox da ngay xam ne lii la ma suñu borom jox tey nitu tele lañu hmm. te kuy woo doo ku nekk boo noppee raf lay ñoom sax kaay koy wax parce que te gis nga am ki lay def ki lay def tey négatif bu subaa boo waxee moo lay def positif maanaam même personne yi ñoom ñooy def négatif même personne yi mu ñooy def positif mais dama bëgg bu demee bay def côté négatif hmm. nañu def analyse commencé commencement vidéo ba jusqu'à fin su ko defee di nga mën a commentaire li nga xam moom mooy sa commentaire bi bi doon sa choix kenn newul bi kenn bindu lu bon parce que Sénégal la ñu nekk bu ñu nee waaw ñu dañ naan déet mënoo fexe ba ñëpp àndandoo ni waaw mais ñu xam ni nous sommes pas contre Aïcha Aïcha c'est notre petite sœur mm-hmm. ñu di ko ñu estimer ko bu baax a baax a baax souhaiter ko tout le bonheur du monde comme li ñu koy souhaiter tout le monde mm-hmm. nous sommes pas contre Aziz nous sommes pas aussi contre ki nga xamante moom mooy Miss. Mm-hmm. contre ñu kenn mm-hmm. waxtaan moo am. dañu joxe ci suñu point de vue. ay mm-hmm. comportement Aziz ah nekk comportement boo xam ne xamuñu ko woon ko moom. très bien loolu kese la mais il est libre. def lu ko neex ak soxnaam su bees ci nga xam ne moom la ko suñ borom may te boo xoolee dañ ko dañ ko souhaité heureux plusieurs fois mm. nit du la souhaité heureux ménage plusieurs fois suba mu la yéene contraire bu nañ waxante dëgg te yàlla tax te bànneex lay doon tey nga gis ñoo xamante ne nii dañuy sëy parce que sëy farta yàlla sunna su Muhammad la sëy du foo sëy du caaxaan ku ci nekk ku nekk da nga koy ñaanal suñu borom bi teg loxo ci sëyam mm-hmm. da nga koy ñaanal sëy mm-hmm. da nga ñaanal le contraire donc ñi ngi jéggalu ci kàddu yi c'était juste pour indi benn éclaircissement rek par rapport ak ñi nga xam ne dañoo jàpp ne nous sommes contre non contre ñu ka Samba contre ñu dem ba contre ñu Paate bu ñuy wax ci nit it xëy na suñu liggéey bii ñu toog moo tax ñuy wax ci nit mais bu ñu ci paree faxasu nañ nekkaat nañ ci leneen. su super super ci euh, euh, euh, oustaz Modou Fall. oustaz Modou Fall. Mm-hmm. bon comme ni ko Adjemaas waxee. Mm-hmm. nit day défendre nitam. Mm-hmm. xam nga tey bu Sénégalais yëpp dalee ci kawam tout le monde est libre. dal ci kaw ka wax ndax nee naa wax bu demee ba dugg ci internet kenn moomatu ko ñëpp la ñun ñii suñu image ci internet bi mënatuñoo fexe ba nit duñu wax lu ko neex mënuñu fexe ba ki amuloon accès ci ñu am accès ci ñun parce que internet ak télévision moo nekk loo xam ne boo ci xasee ba ne fàng te lu ne fàng kenn du ko jeex amatoo yow looy contrôler ci sa image amatoo looy contrôler ci parole bu la nit war a pour sànni la ko amatoo looy contrôler pour nit wax la ko ci lu baax wala nit wax la ko ci lu bon kon vidéo ba ba mu tasee génn rek nit ñi nekk ci internet bi am nañ sañ sañ wax seen point de vue par rapport ak li nga xamante ne nii moom la oustaz Modou Fall wax mais oustaz Modou Fall li mu wax il est de le dire parce que tey wax moo ñëw kenn ku ci nekk génn def sa grain de sel moom ni mu waxee am na sañ-sañ bi parce que àdduna gis-gis yi duñu benn mënuñoo fexe tey ji ba sama gis-gis gis-gisu ajma sa gis-gis yépp nekk benn te nit aussi da ngay défendre sa nit parce que Aziz Ndiaye quoi qu'on dise oustaz Modou Fall nitam la même Aziz bu defee loo xamante ne ni tey nit ñi contre nañ ko moo ko njëkk a yóbbu màkk merci beaucoup boo waxee loo xamante ni tey te ki la yóbbu màkk kooku mënatoo koo fay ci àdduna barki Seydina Muhammad ki la yóbbu ca Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga ziyaara ji ko kooku mënatoo koo fay ci kaw suuf kooku ak lu metti metti metti metti bu bonoon ba gën a bon ci àdduna sax bon boobu da koy gas ba mu xoo dëgg ci sa tànk mm-hmm. masatle ko rawatina nag mu doon sa nit mm-hmm. yemul ci yóbbu màkka mi dafa doon nitam mm-hmm. tey amul sañ-sañu génn ci télé bi doomu aadama yëpp ne ko jàkk muy jël Aziz di teg ci moom yenn kàddu yoo xamante ni kàddu yu ñaaw la waaye bu ñu wéetee ñoom entre ñoom dina ko xamal ni ko ah ah ah, ah frère dëggu gi ma ko xam nangam sàngam patati patati patati patata parce que nag entre góor la te góor dafa am fu muy toll parfois fugg da ko da koy dikkal. Mhm. mën nga def loo xamante ni après di nga toogaat ni waa man lu tax ma def lii. Mhm. te fekk na parfois fukk moo koy def ci doomu aadama. Mhm. nit nag léegi léeg-léeg tolluwaayam ci àdduna il faut que doomu aadama yi di comprendre noonu. nit léeg-léeg dina toll foo xam ne ci àdduna buy def day def loo xamante ni day pare toogaat nii def croiser les bras xool gauche xool droite waa kii man la te fekk na pourtant yow la. mais li la koy def loo doo ko xam. te boo gisee aal bi nga xamante ne ni moom moom la waxee. Euh, comment il s'appelle encore oustaz Modou Fall ma di ko nuyu passage nekk nit ku baax nit koo xam ne man dama koo bëgg personnel te moom xam na loolu sama nit la mhm. yàlla da defa def ñun milieu bi ñun ñëpp benn lañu mhm. comprendre nga mais ku ci def loo xamante ni lu négatif la dañ koy teg ci table ji wax ne ah diw lii mu def nii même bu dee suñu nit la amul droit mu def lii mhm. mais lii mu def tey nitam la défendre mais juste mënoon na gën a modérer ay parole am par rapport ak oustaz bi nga xam ne moom lañ ko xamee parce que tey il est quelqu'un il est xamante ne ni mi ngi def émission bu am solo ak Pape Cheikh Diallo émission bi àdduna bi yëpp apprécier ko. mu mhm. ñuy leeral lu bari lu leerul woon ci ci ci ci ci diine. Mhm. parce que tey ki lay leeral ci sa diine. Mhm. kooku da koy xoolee ak beneen bët. am na nu muy waxee rek après da ngay ne waaw attends diw mi toog di ma wax lii di ma wax lii di ma wax lii di ma wax laa lu tax mu waxee nii. mais il faut nit ñi xam ko aussi parfois wax day ànd ak aal. ba booy wax yenn yi du nekk yow du doonatul doomu aadama bi. beneen nit lay doon. boo paree nag ci ngay toog ni ah mankat waroon naa contrôler samay kàddu waroon naa waxee nii waroon naa waxee lii waroon naa waxee laa mais nag doomu aadama léeg-léeg day juum et dañuy accepté que ni ñun ñii sax léegi léeg ñu def ay bêtises wax ay wax yu ay bal ay wax yu rëy suñu paree toog defaat analyse ne ah fii de su ma yëgoon du ma ko wax mais comme yëfu télé la le coup est déjà parti parfois day génn te boo xasee ba génn mënatoo ci dara li ma naan wax bal la mhm. boo xasee ba génne ko mënatoo koo delloo donc loolu kese la mhm. mais vraiment il a défendu juste xaritam am na sañ-sañ bi waaye nag la ñuy séq après ñoom i jaag dëgg la ba pare ah, ah, li mu def geste noble la mm-hmm. ndaxte nekk geste noble weesewul mm-hmm. yow fii nga xamante ni nii kii bi toll na fa dëgg ah, euh, comment situation bi situation bi dëgg nga jël li nga xamante ne moo desee responsable taxaw dëggal sa bopp mm-hmm. boo doon ngaaka wala nga def euh, li nga xamante ne demi mesure wala nit ki toll fenn fii doo jël engagement yooyu mm-hmm. parce que fi mu nekk nii fi fi mbir mi tolloon nga jël yéen responsabilité yi na ko engagé c'est parce que noble nga mais leeral yi mu indi aussi par rapport ak ñu doon wax que ni euh, Aziz ak euh, Aïcha dañu doon gisee euh, Dubaï pendant que Euh, loolu moom Aziz donc foofu andi na fa ay leeral. kii di mhm. oustaz Modou Fall. mooy ah. photo yi doon circuler ci internet bi. yooyu noonu andi ci ay leeral boo déggee aussi ni mu waxee dafa mel ni que ni loolu moom moo ko metti mooy que ni acharnement bi amoon ci kaw Aziz Ndiaye. et puis duñ ko bëggoon yàqee par rapport ak aussi euh, kii di soxna muy Miss mooy vidéo yi doon circuler donc man ci lu ma comprendre mooy que foofu apporté na démenti comme quoi que ni loolu lay amul Aïcha dafa demoon Màkka. ànd ak moom aussi mu dem yóbbu njabootam ànd ak Miss ak ay doomam donc bi ñu demee aussi peut-être ci kaddu gi aussi boo déggee di nga xam am na aussi loo xam ne leeral na ko li ñu naan wax moom wax la. ba pare c'est lire entre les lignes ndax nee na aussi ñaar ñuy bëggante tey bu ñu dajee fenn. Euh, dinañ gisante c'est donc loolu aussi lépp da nga koy jàngat loolu yëpp da lay tënkal ni. Mhm. que ni moom ku mu mënti di défendre ak lu mu mënti di leeral Aziz moo tax. Mhm. keneen taxul. bu taxawee naan ay ceeb miis lan ca lekk lekkuñ ko seen ceeb ba jabare parce que dañ ko defaral mhm. te nit ki bu la teralee am nga droit wax mhm. ba pare tamit benn affaire dañ ko war a bàyyi toujours ñu naan Modou Fall ku amul situation du la défendre et puis ëpp ko situation Modou Fall day mhm. li muy def ci daara yi Modou Fall li mu def tamit ci juma Seydi Hadji Malick Dieng li mu def tubaarikàlla ci lu baax ci réew mi ba nag benn grand monsieur taxaw jël ko Modou Fall nekkatul n'importe qui mhm. kon nag il c' est très normal nga défendre ki nga xamante ne moo di sa nit mhm. man je suis entièrement d' accord avec Modou vraiment alors rien à dire super donc loolu lay moo nekkoon li nga xamante ni euh, bëggoon nañ ko indi ci cas boobu la je pense que ne aussi ñu jaaree fi tëj ko <laughs> cas bi yàgg ma <laughs> li koy seen la ne ah, xam naa ni moom et puis. c'est Aziz nga siin. ba pare lion wala naka ni il a un mental de résistant. et voilà quoi affaire yi ébranlé wu ko donc mu ngi woyal li nga xamante ni moom mooy liggéeyam mu ngi ci ay chantier et aussi def na message bu am solo mooy aussi offre d'emploi bi nga xamante ni gis naa ko muy ah, joxe liggéey donc ay ndaw. yoo xamante ni bëgg a liggéey donc ah. na envoyé CV am mu nekk loo xamante ni aussi foofu nañ ko nga li sama wax moo ci nekk la nga jàppoon ba mel nii bu ko bàyyi jig na la mhm. waxtaan dëgg ca la mhm. tey mënuma taxaw di def lu baax baat ne li li li naan damaa dégg maa baax maa baax ba maa bon safatuma mhm. kon boo déggee maa baax maa baax wala dara jaral nga salir ça avec son comportement pas les li nga xamante ne moom lay def yi mu engagé ak ses femmes ak défilé woog non non non non non non non on a focus mooy loolu mais d'après li nga xamante ne charisme bi ma am valeur importance nit bi nga xamante nii lu waay def ci réew bi da ko boole. parce que lijjanti na ba dégg daale lijjanti na ba dégg barki dem wax naa ko promoteur waaye lijjanti na ba dégg directeur bi. Mhm. def chef d'entreprise. àdduna yaakaar ko mu nekk nit boo xam te ne ñëpp dañu xool fu muy aw. Mhm. kon na xool na def. Mhm. waxtaan dëgg ca loolu ko c'est tout juste.